daal mais Idaly temps yi dañ la gëj a gis. non maa ngi fi de pourtant. non gis nañ laa gis nag si kii mais Idaly yaa ngi Dakar yow est-ce que. non bien sûr bu nekkul daal fu ma nekk. Hmm, Idaly mais am sa euh, première bi nga bi nga indee sa milliardaire boobu ba tey da ngaa laqatu yaag milliardaire bi fu nekk ngeen dem fa ma milliardaire ñaata dem euh, fay bi muy dem. 125. 125. 125 francs. 125 dañuy gis nga ñuy proposé ay nit ñu bees. mais après du am non da ngay fen kan nga ñu mën a ja oui ma da may nangul da ngay fen ba pare ñu kon ne ah léegi damay fen allez voilà ñang ma xamel daaw ba ren nga ma xamel ñam suma jappé duma bayyi man may non do am continue quoi ah da ngay deggu da ngay deggu da ngay deggu da nga ma laaj xal bama daane nga andi wat benen question bama xamé ko ma xawé den ren mom nga ma xawé dewen hmm. ya, dama hmm. eh, mën hmm. sama nit mën a jàpp sama nit maak sama yaay jeyne ba moo tax ñu wax jeyne ba daa boobu waaw ñu gis non non soxna Adé Saliou Saliou ba léegi ñuy nekk sama yaay la kooku ñooñu di Moussa Dieng mu Serigne Béthio mu Soxna Aïda Saliou yaay Wali Ballago yaay Idali loolu wér na dëkk bi ñoom ñëpp sama yaay daan nga fi jël maa ko di compté di ko tudd mais gisatuñu. kooku suñu yaay la suñu lépp la macha allah from Gambia moo jàppale Wally Ballago Seck képp ku baax ci réew xam nañ nga a wàññi daan jël si moom ah, ah, ah, lu mu tudd engagement yi nga daan jël si moom di ko estati chaque jour di ko di ko di ko tiktok salaamaaleykum engagement yooyu jëlatoo ko si moom lan li ma la njëkk a wax bare couper sa téléphone nga xool sama esthétique nga xam di nga fa gis nga fa gis wali wala di nga fa gis waali doo di nga gis cinq photo waali yu bokkul ak lépp loo xam ne yi am ko kon mbay baal saytaane baal fen ñaanu sama ñaan moo nang, macha allah amatuma jot projet yu bari may liggéey tooguma di wax rek mais waali man ak moom nag ah, may ma rek dafa dugg foo xam ne dafa sensible te sénégalais dañoo man lu lu sénégalais sax ñenn ñi te mbay dafa saytaane man wali nee naa leen kenn du ma mos ci ba may génn ba may dee man gor rek ba ba may dee gor ma ñaari gor ñoo tukk jur ma man maa taxaw ne maag Wally à a vie te ci kàttanu yàlla loolu lay doon kenn du ma kenn du ma vaar ci showbiz xanaa ma tàggaloog sama sago naan sangara wala ma def leen loo xam ne nekkatuma sama sago mais man ak Wally à vie la mbay triangle da nga saytaane nag moo tax ngay wax loolu mais Wally ku xam ne xam ne toujours que man waa rek laa bëgg ci showbiz bëgguma keneen donte damay liggéey ñu bari nag mais Waly bu soxlaa ñëpp waaw si loolu laa bëggoon wax Idda ñu gis la macha allah ngay liggéey yenn booy jeune talent yi booy nekk tees ñu nekk Dakar ñu nekk Mbour ak lépp loolu Idda lan la. waaw lii loolu lan la Idda dafa xam showbiz wax naa keroog ci interview ma ne man damaa xam showbiz yàgg ci showbiz bu nekk ci depuis ndongoloo nga nekk ci showbiz ba tey ñëw ci kan la centre du peuple nga xam ne tey moo raw ci musique sénégalaise bi musique africaine moo fi raw. tey a wax loolu. soo waxee loolu sama gëm la déglu. non day blessé yeneen musiciens parce que ah si ku mel a ngi fi Momo Dieng a ngi fi. day xaar ah keneen day xaar lan moo tax ñuy xaar. dañuy xaar dinaa ci ñëw soo nee soo nee. waaw waaw mais nag nag naan mi ngi jàpp mi ngi a mi ngi tëgg muy fees loolu ngay wax mais bul ne moo raw Sénégalais yi bu doo moo raw musiciens yi. waxal ba pare rek. waaw pourquoi nga parce que parce que moo leen dàq li muy def moo leen gën a mën a fere moo leen gën a mën a sonn ci musique loolu moo tax musique di ko fay mu nekk ndomba wan nee naa leen nee naa keroog fii ba cent ans ba cent benn phénomène mooy am ci réew mi. benn phénomène mooy am ci réew musique sénégalaise muy Wally Ballago Seck benn ndombo benn numéro un mooy am ci musique sénégalaise mooy Wally Ballago Seck fii ba cent moo ko wàccee kenn mën ci dara du man du yow du keneen yàlla moo wàccee musique sénégalaise bi Wally Ballago nekk phénomène nekk ndombo wan ci musique sénégalaise ba béyee musique loolu yàlla moo ko def yàlla day souvent day wàccee maanaam bu nekk dafay wàccee benn phénomène boo xam ne macha allah àdduna ñoo koy joobe Wally Seck nag la fi yàlla wàcc ci musique sénégalaise mu jiitu ci incha allah ci kàttanu yàlla. Salim lan ngay wax si loolu lan moo tax lan moo tax lan non parce que euh, parce que Momo mi ngi fi ah jël na lu mel ne esplanade boo xamante ne. sama rax la yal na ko yal na ko réussir. waaw léegi lan moo tax léegi lan moo tax nga ni euh, Wally rek moo si nangu ba woon lu tax loolu te Momo nekk di dëkk bi. Mbaye yaa ngi nii fa ma fa ma nii ban mhm. lan moo tax nga ñëw Joal te yaa ma yaa ma wax sànq bàyyi nga ñëpp waali ngay topp léegi ba andi nga. tig sa diggante yàlla ma ko wax. nga tig kan ma wax loolu léegi waali ngay topp parce que xam nga ne mooy continu moo am continue baax non non waxuma la ko de. Oh. gis démb euh, Sidi Diop macha allah mu mu oto boo. xam ne oto bu seer euh, waaw oto boo xam ne. waaw euh, waaw loolu. 67 millions 67 millions oto bi day dem. waaw oto bu set set. mbay gi retaan. waaw dëgg yàlla oto boo xamante ne. xam nga xam nga li gën a euh, Wally moom mosul jënd oto bu set. xam nga li gën a jafe ci li gën a euh, euh, métti ci àdduna di nax sa bopp. nax sa bopp mooy daal eh eh yaa ngi tooñ de yaa ngi tooñ yaa ngi tooñati. yaa ngi tooñati parce que. 65 millions xaw du ay caaxaan nit du dem biir feesal ko dell. ah jënd si oto quatre euh, oto boo xamante ne deux portes la ah oto boo xamante ne c'est la première fois sénégalais un jeune musicien mi ngi koy doog a daawal Sénégal gay taxaw fii naan day jaaxaan di saw loolu su la supporté benn plainte dañ lay tëj. benn mbay jeune nga wax ñaanal naa ko mu feesal ko macha allah feesal na ko mais feesal bi yëpp amul amul bénéfice amul bénéfice mooy mais ay billets. Ah. wala li taxul waaw xam naa dara. sama gars yi xam ñun xam nañ soo bi duñ naxante. xam nga stade fekk taxul nga xaalis foofu dañ fa maanaam gagné wuñ fa fa perte. dañ ñoo di soo bis rek dañoo mënul soo bis nag oto bi 7 millions lay jar. oto ban 67 millions. 7 millions lay jar léegi di leen kii. 60 millions yi. wuy ma <laughs> oto bi wuy ma di leen. 60 mas mas 7 millions la oto bi jar million millions 7 millions 500 lay jar. Ah. Idali nee na autosuffisance bi 7 millions lay jar. 7 millions Idali. Showbiz nañu bàyyi naxante xoolal Showbiz. Oh. <laughs> maanaam nañu bàyyi naxante nañu bàyyi aussi comprendre nga nañu bàyyi aussi di di di di di. di wax loo xam ne gëmoo ko est-ce que eh, loo xam ne gëmoo ko. waaw li gis nga Mati Banjul moo si nekk. ah la maa ngi remercier waaw noonu la sax wala ko jëndi Banjul parce lu baax rek a fay jógee macha allah mais li may di wax ne oto bi 7 millions lay jar. mais Wally day mel day defante parce que gis mu wàccee 3 oto yi. kooku romb na defante. Wally mu wàccee 3 oto de. kooku dafa xoolal dafa tombé woon oto war a wàcc tey mais oto yooyu waroon na wàcc bu yàgg Wally ku ko xam ne ma oto moom moom lay njëkk naayoo. moom lay nooyee moom lay def lépp. trois oto xam nga ne calculel bi benn oto bi ñaata la ah. jar. wàcc ci trois oto. benn ñu gis macha mu tuddee ko jaaga. zéro kilomètre loolu loolu yàgg na koo mbébét. dafay doog di ñëw mu tombeek booy bi mbay. Mhm. dafay tombe euh, mu doog di booy bi jënd oto. mu booy oto mu tombe ci mais Wally ku nekk xam na ne. wàllum oto non parce que suñu booy la parce que xam nga ku nekk xam na ne Wally oto euh, moom euh, mooy léppam macha allah mais boo xoolee man li ma bañ gëm yàq dama bañ ba ñuy nax na ñu nax ñu nax euh, nit ñi comprendre nga. mais nee nañu déedéet taxawal daa am ne dafa ëmb si oto yi. loo xamante ne ñu ngi lay jar non taxawal déedéet daa ne ñu ngi koy nguur guddee. ci oto yi oto Wally yi Wally ndekete jaaykatu oto la. comme comprendre nga day gëmloo sénégalais yi ne day gëmloo sénégalais yi ne damay day ja ah, day ja ah, maay jënd lii maay jënd lii maay jënd lii ndekete da koy jënd xam nga comme businessman yi rek duñ jënd di jaayaat waaw loolu la sénégalais yëpp di gungu ne il faut nag ah, boobu léegi maa ngi wër fu ku ma doon waxtaan comme si yow yaa fi il faut ñu waxtaan si loolu ndax euh, euh, question bi fan yëpp maa ngi jolay ay message ñu ne Wally oto bu njëkk ba sax bu seeroon ba sax jaayaat na ko fi mu nekk nii xam nga moom day day day ñëw ne maa jënd lii maa jënd lii ah Wally an na oto gis ngeen oto Wally bi li mu seeree li mu seeree ndekete moom mi ngi koy jaay si suuf. pare nga pare nga. loolu da ngay def nànk ba kër Wally yaa ngi mu egsi nga dem ko ko. ma leneen suñ moom laaj ko ko. Ah, parce que population bi yëpp ñu ngi ma koy laaj Sénégalais yëpp ñu ngi koy wax. en tout cas daal 7 millions la oto 7 millions. ak oto set millions du benn. woy duñu benn. woy ma 7 millions. 7 millions ak 100 millions. ak 500 benn. bu ñu nax ñun dañoo xam soo bis bu ñu nax. parce mm. que Serigne Saliou Mbacké lay jar 7 millions lay jar. 7 millions wax démb de. waay yow. oto bi nga xamante ne. oto bi porte mu mel ni kuy jaay jimbo noonu. ba ah. bàyyi li ngay yow. mais mais xanaa oto bi nag dañuy tiital oto bi dañuy tiital ah. c'est que xam nga lan moo tax oto. lan moo tax ngeen naan taxi la. oto bi taxi la waaw. non lan moo tax ngeen naan oto bi taxi la naan taxi yi lan moo tax ngeen naan oto bi taxi la. waxuma la mais yangoo la ñu doon yangoo yangoo. lii soxor la jimbo man pour man sax instant yii moom pour man dafa nekk usine jimbo lay liggéey vraiment couleur bi comprendre nga nit ki euh, nit waali euh, waali saa yow yow yow da noppi yow. non da ngay noppi laa wax. da ngay engagé nga Mbaye mais bu ñu nax askan bi naan ay 67 million affaire yooyu est-ce comprendre nga. nañu tapé man li ma gën a bañ man bëggu bëggu ma am kuy nax askan bi.

mais maanaam dama ne oto boobu jaru ko est-ce que comprendre nga nañu waxante comprendre nga foofu laay waxee war na mën am lu nekk ci àdduna bi mais bu mu naxee ndax oto boo xam ne 7 millions la jar mu naan ay 60 mu naan ay xam la moo def loolu site internet nañ bàyyi en fait euh, di loo xam ne nekkul gis naa ci benn mu mu titré 67 millions. waaw waaw loolu la ko jëndee. rek loolu la si jëndee oto bi. Idaali da koy wax nag lan moo tax a bëgg ko ah, weddi. barke Serigne Saliou Mbacke jarul loolu. billaahi loolu la jar na. barke Serigne Saliou Mbacke jarul non non nit ki nit ki di xoolal gëmul ko ko xam nga dama la gëmul ko ko nee na yow waaye oto ñun suñu patron suñu patron suñu patron day maye oto ba koy sëlmoo kenn du ñu nax ci oto. bu nekk xam nañ oto bu wàcc senegal dañ naan tap xool. si doo du may xool oto bi ñaar lay jar te oto bi daw na Gàmbi mil wër na biir Gàmbi yëpp pour muy leer oto bi wër na biir Gàmbi dem na Masig Baar dama lay wax oto bi romb naa ko Masig Baar bañ fa demee Jules du ma bàyyi ma fen Masig Baar gis oto bi benn sama gars yi ñu naxante foofu lay gaare Masig Baar wër na fa wër na Gàmbi yokkee andi fi sama gars yi naxante soo kenn kenn mënuñu cee nax oto 7 millions ak oto 67 millions. mais yow yow oto waa oto oto sa patron oto yi mu gaara tey kan moo euh, euh, kan moo ñu lan moo ñu leer ne ne oto oto la parce que euh, dawal na gars yi dawal jékki-jékki. waaw ah. ran ñaa def ne ah yaa jënd oto yi. Ah, waaw conteneur waaw conteneur lu ñu leer ne ñun. ñun lu ñu leer ne ñun ñun loolu noonu la loolu la. conteneur bu ñëw sa biir gàlle ñu wane sa kër. meuble ak appartement du benn boo sumee say daal appartement mu fees doo am foo teg sa tànk ñu andi. conteneur mu taxaw ci buntu kër waccé auto yi mar génn fan ci génn ñepp génn mar mom walu auto mom bu len ci wax. mais parce que day jaay auto parce que day jaay auto man xam ñun xam nañ day jaay auto waaw waaw mën na jaay auto am lool nga wax mais walu auto mais bu len ne bu len ne nak bu len bu len tutal boy bi tutal tuutaluñ boy bi boy bi tutal boy bi boy booy bi mu ne ko tutal fa mu bëgg ag ag ah. gu ko ñan yalla mu ag fa nak mais ag gu ko la 7 millions la yor parce que seenam feetal na zirik rek allo taxi yango la yor comprendre nga nañ nangu ne Yango Ngor vraiment xaw ma ku ko tànnal couleur oto bi ndax bëgg couleur bu osé mais mënoon na jël bleu sax wala beneen mais non non non lii mel ni Yango. tey lan la ñuy xaar si Wally tey tey Joal fii mu ngi doog Joal macha allah ñu gis waa dëkk bi ñëpp génn. bon li ñuy xaar si moom premier concert am. Hmm. moo nekk ni ba moment jaag gaañoo ba léegi. Hmm. premier concert Wally Ballago Seck ci kaw fii. waaw tey Joal la ba léegi ay soirée def Europe bi. mais premier concert am Sénégal fii ci stade tey lay doon. muy bisu Etienne. Etienne borom Bordeaux. Mhm. doom day Omaro. ah ah tey amoon am na lu xew de. lan moo xew. le ah, Etienne wax na wax. Ah, Etienne nee na gisagul Omaro de. non loolu mënul ne. a ah, Etienne de loolu la wax. mais la ma ne ko Etienne sax. Euh, mais man li ma jaaxal man xam ma nekk ma foon ma ko xamoon génn mais doom omoro dama ko gisul benn yoon ci xew bi. déedéet moom kay nee moom nee na woowuñu Omaro mais Omaro su déggee xam dafa awra ñëw. non non non Etienne moom bu dee Etienne moo wax loolu. ah Etienne day am laaj naa ko Omaro. non non bu dee Etienne moo wax loolu Etienne la moo tax. Hmm. Omaro man foofu du ma nitam la warul toog bés bu toll nii mu am ko ak Wally Ballago Seck te wowul Omaro téléphone ne ko dama am bés. xaw ma nag lu ñu jotee nag bu dee dañ jotee wala leneen mais Omaro Etienne ku xam-xam ne Etienne ak Omaro lundi la ak mardi man nag xaw ma seen diggante lenn. mais tey soo fi gisul ba coow li jeex lan lan lan ngay non dina doy waar trop dina nekk loo xam ne vraiment dina ma jaaxal parce que nit ku nekk da mën a am si nit man tey ngeen ma xam ñëpp tey ku ñu xewlee danga koy teew ba mu neex donc même bu doon damay tardé ñëw sax dinaa ñëw te Omaro moo tax Etienne siiw mais dégg nga même mu taxul mu siiw sax Omaro xaritu Etienne la mhm. comprendre nga xaritu Wally la ci Omaro lañ ko gën a xamee comprendre nga doomu doy Omaro Wally yàgg na ko woo yaakaar naa ci océan océan borom Bordeaux mhm. kon bu mu ne gisaguñ ko ma ni ko ah est-ce que dina ñëw mu ne. mu ne. mu ne su ñëwul sax daa war a ñëw warul xaar kenn du ko. mënoo communiqué wul ci bis bi. waaw te Omaro communiqué wul. mais est-ce que itam fay nañ ko communication quand mais moo moo ko écaan sax du ak question de communiquer. mais maanaam euh, waruñoo seq sax fay parce que mel nañ ñoo xam ne mooy loolu te Omaro du xaar du koy woo ci bésuwaale pour mu communiquer rawat na écaan nag dem ndeyam dem léppam xewle. kon am na nu mu No, ci suuf loo xam ne non parce que non non xam nga xamaguma lu xew mm. mënuma xam li xew mais bu soirée pare te gisuma fi Omaro mm. man dinaa xam li xew te bu boobaa daneen togat daneen toog ñu waxtaan mm. parce que temps omoro Omaro moom itam wax dëgg yàlla gi ñaaw gis euh, aussi gëj naa ko dégg ci ci kanamu waal yi gëj naa ko dégg yu bëri gars yi ñu ngi wax ay rumeur yu nekk en comprendre mais man comprendre parce que ndey mbili gi wax wax ma dégg comprendre nga kon mënuma xam euh, moment bi lan la kon ñu xaar si kanam kon incha kon mais en tout cas suñu la bokk ชื่อระบบได้ระบบอินชาอัลลอฮ์